nekk nii lii téeméeri junni la ak fukki junni ñaari oto yëpp sët ba fees lépp lu ñu mën a ndogoo Awa indi na ko lii tamit ci daara yi may jàngale ci asamaaw si la ne ñee nga France ñee nga Allemagne ñee nga fu ne hmm. bii jubal see nag ñëpp laay laaj lu waay indi hmm. joxe ko hmm. am na ñu joxe ñaar téeméer am na ñu joxe ñeenti téeméer am na ñu joxe junni mm-hmm. am na ñu joxe ñaari junni mm-hmm. am na ñu joxe fukki junni mm-hmm. am lu waaye man daal la def def am na ñu joxe sa fukki junni ak ñett lu ma dajalee lépp nag takku na lool ci lan sol essence yi ci lan fay autoroute yi ak sunu fere yu sew téeméeri junni bii ak fukk tamit ci lañ ko génne addiya yaanu ne baa ba nu ne bàyyi njàngalee tax waaye groupe bu amutam njàngale day tas waaye ñun suñu groupe bi nit ñaa ngi yokk rek waaye kenn.